ña ngeen laak paaleen daal ñoo jàkkaarloo ñoo xam moo taximaan nu ñu bëree tiitar non c'est que bon euh, ñun ñooy tiitar hmm. ah, euh, ñun ñoo ko moom quoi ok ok <laughs> parce ñun ñooy yab ku ne di yab lu ne hmm. ki ñëw ñun rek la fi fekk te ku wàcc sa morom yéeg euh, damay kontaan nag franchement ci sa xalaat ak sa wax hmm. pertinence bi xam-xam bi nga waxee di nangu benn côté benn côté bi euh, damay bañ euh, da nga fiy laal ay point yu sensible yu am solo parce que nag pël ku ko woo ci guuxum soow nag wàcc nga parce que dañu wax ñaari ci tali bi la ñu wax euh, ñaari ci tali bi raconte des faits yoo xam ne ni certes il a subi yenn yi je l'ai vu de mes propres dama koy dund créé ci concept di ci waxtaan ba pare bind ci ay scénario euh, damay faral di wax ni su ma tudd ko fi agent police agent de sécurité di lay nuyu de passage di xam ne y a des brebis existe dans tous les corps ne dañuy ñaawlu doxalin taximan bi bu nekkee ne tegu ko ci yoon dañ koy ñaawlu quoi qu'on du rafet mais bu rafetee dañ koy wax parce que ñëpp bokkuñu yem damay wax responsabilité partagée ba pare di jaal ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci accident yooyu ñi ci gaañu nag di leen ñaanal ñu delluwaat ci seen activité yàlla defal leen wér parce que kiy jóge këram yor oto di liggéey ñaanul yàlla def accident mais accident nag danañ ko def ci volonté maanaam nit ki ni muy doxalee mun na causer accident. xam nga dama seetaan vidéo bi ma dégg chauffeur bi wax bi am ci autoroute bi euh, yaakaar naa ci pont yaraax bi la côté yoon hmm. ma dégg chauffeur bi mu ne waa ji ko doon pointé le naan ko yow mii la da nga doon njëkkante di ko indexé ma dégg chauffeur bi mu ne bi nga tàllalee micro bi mu ne. yow gëmoo yàlla accident yàllaa koy dogal pour dellu si ci li nga wax lu ñëw ñu ne yàlla yàlla moom amul ay mbokk euh, nee naa la responsabilité partage gi nga chauffeur yi des fois ñi ñuy jox oto yi am na ci ñoo xam ne ñii bi ñuy ñëw ci oto ba ñëwewuñ wuñ fa permis dañ fa ñëwoon comme receveur parce que ñun ñu nekk euh, ci ay secteur bi foog ñu leeral des fois type de conducteur yu am ak fan lañ jógee ak nan lañ def bañ jox leen oto parce que conséquence boo gis am na cause receveur la ñëwee parce que man j'étais animateur rajo Afia dama doon invité chauffeuru Tata di invité euh, chef de regroupement di leen interpeller ci lii xew parce que dafa lii da xew dafa yàgg de lii xew dafa yàgg dañ koo bay bayloo ba mu indi lii te buñ ci taxawu day gën a yokk te man taxaw man am naa yaqin que ne tollooguñu wala taxaw guñ foo xam ne nii lii war naa jeex. comment ça. ok comme euh, pour loolu euh, c'est les hommes qu'il à la place qu'il faut. kan moo war a dawal oto kan moo war a nekk chauffeur de transport en commun. Hmm. Sénégal ku jóg uti permis nekk chauffeur taxi. mooy les brebis galeuses yi may wax léegi léegi léegi est-ce que am nañ formation est-ce que ils sont préparés pour être un chauffeur de taxi parce que chauffeur de taxi ne c'était warut a nekk n'importe qui parce que rapport direct bu muy am avec la clientèle hmm. parce que kiy choisir taxi dafa am ay critères yi tax mu choisir ko hmm. confort ak sécurité nan laay waxtaan ak taximan client yàgg naa dàq taximan fay ko lu prix bu misérable pour dàq ko am lu tax est-ce que nam waxee moom gisu ci waxam arrogance. dëgg la est-ce que waxut ak moom tàng xol ak waxtaan et cetera et cetera. chauffeur taxi warul mel noonu dafa war a nekk koo xam ne nii ku yaatu koo xam ne ni ku ñëw mu war a mën a ànd ak yow donte nit ñëpp bokkuñ yem nag ndax li ngay li may critiquer ci taximan bi des fois moom laay critiquer ci usager bi client bi moom laay critiquer ci beneen journaliste bi ak keneen ak keneen parce que ñëpp bokkuñu. mais bu ñu wax wax na ko léegi Semaria wax na ko léegi bu ñu pointé du doigt dañu mettre tout le monde dans sac parce que dañuy wax chauffeur yi la ñuy wax taximan yi problème